ji a am lu toll ci juróom benn fukki at mu ngi dëkk ci Mbour moom nag bokk na ci ñi nga xam ne projet bu pooru Ndayane dale na laal jot na chèque bu ëpp juróom benn fukki million ak juróom ñett ci suñuy koppar. Euh, campement touristique la woon boo xamee ne waa Ndayane ñoo ci doon bénéficié wu doon fa liggéey di fa daan seen doole yàlla atte na aussi buur moo ñu joxoon terrain bi bu ñu demee ba jamono dox. ba ñu neen daayaan dañ fiy def port multifonctionnel dañ koy rafetlu parce que port bi li mu ñuy indil moo ëpp doole fop li ñu fa doon exploité. waaw j'ai reçu un chèque de cinquante neuf millions pour euh, dédommagement impense ci suñu terrain yi nekkoon Ndayane. ni ñaar ñiy jotee seen chèque yeneen fukk ak juróom-ñeenti doomu aadama tamit jot nañ seen chèque ni ki tey jii mu dal di tolloog juróom-ñaar téeméer ak fukk ak juróom-ñeenti millions ci suñuy koppar budget. bi nga xam ne dal nañu koy jox lu toll ci junni ak téeméer rek ñeent fukk ak juróom-ñetti doomu aadama yi projet bi laal toll na ci lu ëpp ñetti milliards yu toftal juróom benn téeméeri million ci suñuy koppar. des fois xam ne dañu amoon seeni ay impact commencé sax euh, jël suuf si pour démarrer projet bi tey dañu ñëw ci département de Mbour ci département de Mbour euh, juróomi junni euh, téeméer ak juróom fukk ak ñaari personnes ñoo impacté ci projet bi. tey fi ñuy wax ak yéen 1888 personnes d' accord nañu concilier. autorité yi def seen kéemtalaay kàttan ngir gën a ñoŋal barème yi nga xam ne ci la ñu fayee waaye tamit gën a duunal taux d' indemnisation yi waral ba administration bi direction générale bu port autonome de Dakar ak ñi nga xam ne ñoom la bile projet laal dal di déggoo. Euh, texte su état yi ni mu laloo fii ci domaine national. du mën a yomb pour nga am ci xaalis bu bëri parce que euh, noonu la réew di doxe port dolli ci loolu parce que ci ndigalu président Macky Sall ñu dolli ci ay buuñaa bu am solo pour nit ñi war a am ay chèques yu duuf moo tax li ñu def ci pooru Ndaayaan ci wàllu indemnisation ci wàllu ndàmpaay moo gën a tar gën a duuf ci li ñu mës a def ci yeneen i projet d'initiative présidentielle directeur général bu port autonome de Dakar di Mountaga Sy dal dinay xamle tamit ne dinañu amal ab stratégie de communication sociale ngir mën a gunge pap yi maanaam ñoom ñi nga xam ne bile projet da leen a laal ginnaaw bu ñu jotee seen chèque bile port ñu ngi ko war a dalloo ci atub 2027 dina bokk ci port yi gën a mag fii ci Afrique sowu jant dina tamit dugal loxoom bu baax a baax ci gën a taaral ëpp portuaire sénégalais bi